leen nuyu leen ziare leen bal ak leen bal ak di ñaan suñu kàddu yi fekk ñëpp ci jàmm waaye ñëpp ci jàmm te lu ci dëgg ñu xam suñu ñàkk xam-xam la ak suñu tëlee wax waaye lu ci baax ak ci ñu xam ne Sëriñ la kon ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp ci li weesu lépp rek nag te ñaanal eh, yàlla Sëriñ Tuubaa radiyallaahu tas ci barkeem te yàlla fayal na ko di ñaanal Cheikh Mamadou Fadal mi ma boole ci tas ci barkeem te yàlla fayal na الشيخ مودال منتقى رضي الله يعطيك في تبيرلكو اللي موي ليغيال اك لي بغي ليغيال سيرن توبا ليب ما اكل ما تصابت نو فك تانك موم ديكو نيانال بوك طالب ييب ديكو نيانال الاسلام ييب ديكو نيانال نبر سيرن توبا كيب نيكو نيانال نيون طالب ييب يال ديفال نكو تاي فاتلي ني دانيو دغمال بيس بو ري ري بو خامي بيسو الاسلام ييب لا بيسو دينا جيب لا بيسو مودن كيب لا موي بيسو قصايد با ني بغي ديف تا لاس فيغاس ان شاء الله ورا نيك فوكي فانك بن تي غارو ابيل بي نيو ان شاء الله ربي ñu ñaan ñu yàgg ak ak jàmm dugg ci ak bismillah rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin ñuy ndokkeel ñi ca bokk ñëpp nag ak bokk yi koy taxawu ñëpp ma ndaw ak fu mu nekk foofu jiite mbooloo mi ca Las Vegas ñu koy jàppale ñëpp ci liggéey booba ndax loolu tam di liggéey bu rëy boo xam ci liggéey sëriñ bi la ñu mm-hmm. ma koy waxee saa bu nekk rek sëriñ bi noonu la dafa rëy te yaatu mm-hmm. danga la yaatu na mën nañ ci liggéeyal fu ne mm-hmm. kon euh, te lépp rek di yiw lépp di lu luñ mën a njariñul tey ak kon bu ko defee bis boobu nga xam ne ci jublu rawatina nag te ren dafa bëri symbole bu ci nekk ndax sëñ bi damay wax ne fañ koy defe ji di dëkk boo xam ne am na lu mu siiwee Las Vegas moom ko ne xam ne li ëpp la ñu fay dem la fa yóbbu ay caaxaan la kafak leneen ak um po yàq seen xaalis ak leneen rek waaye maa ngi dem Las Vegas ngir jaamu ji yàlla damay wax ne jaamu Sëñ Tuubaa ko njëkk a woote ndax li nga xam mu ñu jóg xasaay Sëñ Tuubaa lépp jaamu yàlla la ndax Sëñ ko ñaan moo bind mooy wax ne waj al xuruf yi kullaha ibada yaa man lahu al ibadu wal ibada yàlla yow yàlla maa ngi lay ñaan nga def sama araf yëpp nekk jaamu yàlla ndax yow yàlla yaa moom jaamu yàlla yaa moom ak jaamu yàlla kon bu ko defee lii nga xam ne dañ koy dëgmal muy bis bu rëy bis bokk ci bis bi lenn ci bis liggéeyal sëriñ bi ndax liggéeyal sëriñ bi dafa bari doonal sëriñ bi dafa yaatu ni ma koy fàttee saa bu nekk mu di doonal dafa bari sëriñ bi ci doonal la bokk njabootu sëriñ bi ci doonal la cheikh yi sëriñ bi ci doonal lañ bokk dëkk sëriñ bi ci doonal lañ bokk bisu màggalu sëriñ bi ci doonal la bokk xasaayit sëriñ bi ci doonal la bokk dëkk yi sëñ bi sànc doonal la bokk xeex bi sëriñ bi xeex ak tubaab yi ko nañ koy sànq mu am victoire seen kaw bu leen ci doonal la bokk li sëriñ bi liggéey ci alxuraan ci doonal la bokk ak njaboot bi liggéey ci alxuraan ak ñi sëriñ bi defar ñu doonal ak ñooñu nañ defar ci doonal la bokk kon loolu lépp doonal loo xam ne dafa yaatu tërëyi kon buñ ci bi pàcc na tey jublu ko ci bindi sëñ bi kon li cay yëngu itam lenn la ñuy yëngu ci biir doonal sëñ bi ndax lépp rek sëñ bi la jógee ndax ndono yooyu yëpp li tax mu wuteeg ndono yëpp mooy li ko li mu jógee ci sëriñ bi kon bind sëriñ bi tamit tax mu wuteeg bind ko sëriñ bi bind kon bind moom rek ñu koy màggal ñu ngi koy feeñal ñu koy béral ci di di di ci woote ñëpp ci war jàpp xam ne ñëpp ko bokk. Mm-hmm. même ñu gëmul diine sax te gëm culture gëm xam-xam sax war a ci lañ bokk. Mm-hmm. waxuma la nag jullit yi waxuma la sénégalais nga xam ne culture leen ñor mooy ay way ak bind ak maîtriser une langue ak transmettre ay message par l'écrit mm-hmm. ñoo ñi nga xam loolu moo leen ci ñor ay ay style ak yooyu loolu loolu leen ñor ñooñu sax ci ci lañ bokk waxuma laa nag jullit yi waxuma laa murid yi waxuma laa yi waxuma bokk yi nga xam ñoo bokk liggéey bi kon bu ko defee rek ñuy ñaan ñun ñëpp rek ñu fabu bàyyi ko xel jàpp ci nuñ mënee ak nuñ mënul teewee nit ci nii mbaa teewee ci naa waaye ñun ñëpp ñu fexe ba teew ci jàpp ci ndax liggéeyal sëriñ bi la te it euh, liggéey euh, liggéey bu yàlla nangu bu noppi mm-hmm. yaa man jamee xidam taq taqabbala am na fu mu ko waxee سلبت الجميع دون سلبي وليت اول سؤال وقت طلبي يا من جميع امل في وقتم يا من جميع خدمي تقبل سما ليغي نانغو يالا دي بندي سيغ دي ليغي بو يالا نانغو برا ليغي بو يالا نانغو بو نابي نك كو جيف باي بو nga xamne